bi dajale ay xaritam ay collaborateur am nee ñu nañ ko waxal gërëmal ko askanu Sénégal euh, biñ ko tegee loxo boobu ba léegi euh, gis na nan la askan bi farluwee si ay mbiram mu ngi gërëm ñëpp di wax waa diaspora bi biñ koy teg loxo yaakaaroon na dina wéet amoon na tiitaange loolu mais message yi yegg si moom ak mobilisation bi diaspora bi def ko yëfu boppam tax na ni xelam gën a dal xam na ni moom mu ngi foofu mais problème am waa diaspora bi jël nañ ko te dañ si def li si war mu ngi leen di gërëm ñëpp di sant ñëpp képp nag xam na ni euh, képp ku journaliste ku mës a invité Boubacar Seye xam nga ni Boubacar Seye euh, wérgu yaramam neexul fu mu musaan yéeg xam nga ni day appat day kii euh, ñuy wax nag njiitu réew mi Boubacar si li ma yóbbante tey sama ñaari loxo nee ma lépp li ñuy wax si lii diffusé wu ma benn fausse nouvelle dañu bëgg a changer wax ji ni ñu ko waxee euh, mu ne ma waxal ko Macky Sall que moom du noonu du ennemi wu état wu Sénégal moom du politicien encagoulé moom amul benn problème ak askanu Sénégal dafa ñibbisi pour jàppale askanu Sénégal ñi nekk si diggante moom ak Macky Sall ñooñu ñooy faagaagal lii dëgg la nag ay waa këram la yu ko jege du ñu ko sori. ñu ko jege la bés bu fexee ba moom ak Boubacar Seye ñu toog ñu waxtaan ci question migration dina ci xam loo xam ne xamu ci woon Boubacar mu ngi dënk boppam askanu Sénégal xam na ni fi mu teg tànkam bu ñu koy wax waxu diffusion de fausses nouvelle amul fenn moom Boubacar ci benn waxtaan bu amoon fii ci benn hôtel de la place ñuy laajte waxu programme financement yi fan la dugg si la ko ki toogal Union européenne jour boobu woo ne ko naa la jox document yi nekk à disposition nga xam lu loolu weesoo également Boubacar Seye ak benn délégation dem nañu toog biir siège Union européenne fii si Albert Sarraut waxtaan si question migration waxtaan si question kii boobu Boubacar du waxantu ñi xaw képp ku xam Boubacar ku mës liggéey ak Boubacar ku jege Boubacar xam nga ni il une façon de communiquer certes mi il a une façon de parler certes mais Boubacar ne fait pas dans les détails